Birkelane fekk fi maire yi nekk ci département Birkelane fekk fi responsable politique yi dëkk ci département Birkelane fekk fi ñépp ñu àndandoo nekk benn may ñaan nag gannaaw daje nii ñépp ñi nga xam ne ñu ngi politique te nekk biir APR lañ xam ne man ci ñi fi mujj ñëw la bokk kon njëkkantewuma jiitewuma dama bëgg ñépp àndandoo liggéey ngir le président liggéey pour falaat président de la république loolu képp moo ma yëkkati ci loolu lay dox bëgguma jiite kenn man commune bii ma jiite doy na ma jarmee nag ba président de la république jàll am li bëgg le vingt cinq neex nag ma ngaa samp sa dënd ne lii laa bëgg ne lii laa bëgg bu boobaa lu neex waaye def ku ñeme njub ku man sa morom duma waaye diggante bi nañ fexe ba rafetal xol yi sellal jëf yi àndandoo nekk benn kenn ku nekk la nga mën a yore nga yore ko la nga war a yore nga yore ko ñu ko def ci jàmm ak salaam pour l'intérêt de la paix pour l'intérêt du président de la république pour l'intérêt de Brikalam. Yaya Sow ku xam ci région Kaffrine xam nga ne Yaya Sow xeex rek ko tax a jóg waaye su doon ñëw mbokki joor konoon am na ko du jóg politique. wala du bokk ci benn kuréel parce que li muy am am na ko te li mën a am ah xam naa ne ñëpp mën nañ ko am waaye mën na ci am lu ñaar bokk leen day bokk bàyyi ci région Kaffrine bi Macky Sall moo soxla ma Demba soxlu ma Samba soxlu comme ni ko Serigne Fallou waxee bu président jàllee ba pare waaye terrain bi ku moom kenn moomu ko ku man rek ci xatar kon nañ bokk ndey bokk bàyyi maa ngi gërëm ñëpp di gërëm it nag oh. kilifa yi fi ne ndax lu mbooloo mi bari bari dafa am maire yoo xam ne ñoo takk ñaari casquette ñii ay maire lañ mais ay au conseil de la république lañ ak kon ñu ngi gërëm ñëpp mucc ayib am na ay alliés yu fi nekk tey Babou Fofana man woo fekk mu ngi woo Naata Ngom Saliou Badiane jot ko mu nekk semence yoo xam ne bu nekk ci département moo ko fi teewoon mu nekk PS loolu tam ñu bàyyi xel ne allié yi ñu ngi fii xamee naa ci ki fi représenté Babou Fofana ba woo ma démb ne Saliou Badiane moo ko fii teewal mais sant di gërëm aussi yenn responsable nekk fii ci biir département Birkelane ku ci mel ni l'honorable Nderi Loum docteur Omar Sarr ñoom Traoré ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que ñëpp ñoo ciy fii ñu toll nii kenn rek moo soxla c'est le président de la république ñu jaari problème collectif bi liggéeyam loolu la tey biñ ko sampee ginnaaw xalaat bu rafet bu sell bu jógee ci Yaya ñu koy sant yoo gërëm encore collectif bi sol lëkkalaat def tournée ci biir département bi dem comité département par département ci biir région département par remobiliser nit ñi ñaaxaat leen si parrainage bii di waaj a ñëw foog naa ñoom su jëlee kàddu dinañ si wax ma ñun lii nekk lu ñu bett ci mbir la parce que tey dimanche la te luuma bi mucc ci luuma yi la Fallou ñu ngi lay encore une fois ñu amal solo mooy regrouper tous les maires regrouper tous les responsables regrouper organisation jeunesse regrouper organisation femme regrouper organisation éleveur ak artisanat organisation pêche am na fi culture pour que ñu mën a partager li nga xam ne moom mooy suñuy xalaat. que ëllëg ñun ñëpp ñu dugg ci kër yi jàpp suñuy fils dem parrainer son excellence monsieur le président de la république kon meeting ñun amuñu meeting meeting ñu de ndax bu doon meeting la maire yi fi daje kenn ku ne bu ëndee ñetti kaar dina romb 2000 personnes kon du meeting moo tax a jot journée bi réunion la séance de travail partage ak xam ñun ñooy ñan ak ban lañ bugg a loolu rek moo waral bés bi. kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax rek ne temps bi moo xat parce que bu ngeen xoolee tey am na ñu war a am réunion Dakar 15 heures ñeneen ñi 17 heures man mii dama waroon dem Dakar mais l'honorable député ak le conseil spécial du président président de PCA du PRODAC le vice-président fédération de football yàlla na yokk yàlla na ndoo mooy yokk ah comme nag da ngay ñëw wax ñu fan la ñuy jaar ñun ñu ngi déglu ñun responsable wax leen indiquez-nous le chemin comme on dit wax leen fi ñuy jaar rek bu soobee yàlla bu ngeen waxee fu ñuy jaar ñun ñëpp dinañ ànd incha allah fexe ba comme ni ko honorable euh, bi fi mujj jël parole léegi wax pour que Mbirkilaan keneen duñ ko fi pare nekk loolu président Macky Sall te yaakaar naa ni loolu ñun ñëpp ñu takkoo taxaw loolu dina am. Euh, li honorable Fall Fall wax aussi muy sama mag dégg nañ ko je pense que euh, ñu ñëpp benn lañ ñu ngi ànd di liggéey et nañu fexe daal ba ànd boobu sax ñu ànd am benn dynamique bu nga xam ni dañ koy dañuy entraîner population bi yëpp pour que ñu mën a élire suñu président au premier tour dans de très condition ñu ngi kontaan ci yow di gërëm suñu naaw la jigéen ñi ànd ak yéen boole wun jigéen du neex waaye nag wax ji neex na bi ñu jëlee jigéen ni na wax ci turu mbir gërëm jigéen yi mbir kilaan te xam ne ñii fi toog tey muy jigéen yi mbir ñu am jom rek lañu kenn ku ne am nga loo war a def defi suba ginnaaw suba di tabaski kenn ku ne tey di sa weerul dee ci mbir nga war a am loo lijjanti pour say doom war a am loo lijjanti sa pour sa kër waaye ngor rek ngor rek ak sopp suñu responsable politique yi ak sopp suñu maire moo ñu taxa bàyyi lépp lu ñu am ñëw taxaw bu yeboo ñu bañ fee am dara bu yeboo ñu bañ fee am dara te séentu wuñ ko fi waaye nañu ñëw soutenir leen ànd ak yéen li ngeen bëgg moom jeex tàkk ñu di leen yëgal ni nag responsable euh, Sow Seydi Sow muy laay sow ndax ku ko yëngal rek yëngal kaf na waaye ni ngeen mel ci moom rek la ñëpp ci moom li nga xam ne nii nag mooy solo daje yi lu am solo la muy wàllu parrainage ñu bàyyi xel ne am na ay doomu aadama yoo xam ne nii njëlbeen bi commencé nañ di dugg ci nit ñi di yàq seen xel wala ñuy récupérer seen carte d'identité yi même suñu leen dul am sax ñu jël loolu aussi yéen maire yi na ci bàyyi xel am na ñoo xam ne ni déjà ñu ngi ci département bi ñi ngi ci région bi nañ leen bàyyi xel li ci am solo nag mooy ku ci nekk fa ngay njëkkee mooy sa kër suñu njëkkee kër yi ñu def dëkk bi suñu defee dëkk bi ñu def commune bi suñu defee commune bi ñu def département bi ñu defee département bi ñu def région loolu moo am solo wante tey am nañ suñ bokk yoo xam ne ni sax nekku ci departement bi nekku ci région bi mais ñu ngi Dakar te dakaar nekk foo xam ne ni tey pôle urbain la te pôle urbain fu yoo leen fekk rek ñoom dañuy contre état kon ku ci nekk am nga sas soo amee sa mbokku Dakar nga jéem koo dem waxtaan ak moom ba carte boobu mu dugalal ko président Macky ci kër bi loolu dina gën a am sens ñu gën a am ndam parce que élection yi ñu jëmal nii du raw gàtt dafa war a leer pourcentage la ñuy laaj pourcentage bi ñuy laaj nag li koy doxal mooy ku ci nekk nga summeeku dem ci kër yi ki nga xam ne nii àndul ak yow nga jéem koo convaincre waxtaan ak moom mu ñëw ànd ak président Macky Sall pour que victoire bi leer parce que ñun bugguñu victoire faraatu liñ bëgg mooy ñu am plus de soixante dix pour cent loolu nag lu ñu koy may comme ni ma ko waxoon sama njëlbeen ñu nekk benn di liggéey bañ di naxante ku ci nekk soo toogee fa ngay liggéey nga jàpp ne man lii may defal sama bopp laa koy defal parce que Macky Sall moo soxla parce que ñun ñëpp mooy suñu njiit waaye nag suñu ko jàppalee jàppale suñu bopp képp ku fi takk ndomb tànk fii ñu toog nii su Macky Sall faloo nga faluwaat waaye ndeg yàlla tere su amee jafe-jafe ñun ñëpp ñu am jafe-jafe. ñi jël xar aussi fii meeru. département bu Kaffrine maa ngi sant maire yi dëkkaat ci département yépp waaye ma sant aussi ñi nga xam ne jël nañ kàddu ci maire Malem Hodar sant maire Malem Hodar yépp ma sant aussi te maire yi nga xam ne jël nañ kàddu ci département bu Koungheul soo boole yépp mu nekk région bu Kaffrine maa ngi sant ñépp di leen wax ne sant naa leen gërëm naa leen waaye ma tëj ci sama mag sama xarit Ablaye Seydou Sow fi ñuy dem ñu bokk ak moom fi ñuy dem ñu bokk ak moom. ma sant aussi ñi nga xam ne dañoo nekk ay responsable ànd ci liggéey bi ñiy yore ndombo ak ñi yore ndombo yëpp ci liggéey bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. tey Birkilane dañoo jël tournée région de Kaffrine Birkilane bokkati région bi li ñu amal solo mooy ñi nga xam ne ñooy élu région bi nit ñi waa région bi ma département bi ñoo leen tax a doon élu. ñoo ñëw ànd ak ñun waxtaan ak ñun ñu partagé programme bi ba mu war a àggal fi mu war a àggal mbir mi lan nag tey Pa Ndiol lu wax nag ñëw naa fii 2011 waaye bi may ñëw 2011 ak bi may ñëw 2018 dafa uuti loolu lañ doon sàkku nag nekk naa sa kër ñetti fan sama oto ak yow ak Aliou ñoo doon ànd ci benn oto ak saa dimbu mii ak Aziz ñu dog ñetti fan ci département Birkila bépp bureau de vote man maa ànd ak yéen ñu monté représentant bureau de vote yi kon sama liggéey fii du tey kon tey bu ñu waxee yaayaa Birkila nag Kaffrine Malem Hodar defandee rek waaye bi mu nekkee benn pot sama oto bu ñuul bi boobu lañ doon dokee di monté lii ba honorable yi génn ci mairie génn ci conseil département génn ci ba leneen génn ci ba ministère génn ci bon ñi ko àndoon ak ñi ko defoon ak ñi ko doon fekkee maa ngi sant ñooñu di leen gërëm waaye di sant aussi ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci Benno Bokk Yaakaar jàppale mag yi deuxième tour ak ñi nga xam ne dañoo gis liggéey président ba ràññee ko ci ñëw jàppale ko tey benn la ko du tàccu pour mën a gagné du li fi nekkoon rek mooy kon mag yi bon dinañ indi ñeneen di félicité ñi ñëw jàppale ñu ci liggéey bi di ubbi waat porte bi képp fu waay ne na ñëw réseau bii collectif bii dara taxul ko jox wax bi bari na yaayaa dafa bugg a nag nit ñi dafa jël kàddu bi dafa jël poste bi man mosuma laaj laajte leen ku leen nekk bi may doon meeru Ribo trente-huit ans laa am waaye waa Ribo ñoo ma gémbat def ma candidat meeru Ribo maa ngi France ma gagné ci score boo xam ne trente-huit conseillers sur quarante-six ci amul bennoo amul benn kii ba APR laa demee élection ñëpp seeti nañ ko région bi bariwul ku demee ci Benno Bokk Yaakaar te nga demee APR kese man mii ci laa bokk. bi ma nekk aussi candidature de département bi le maire Amman Ndao maa Karim Mbaye Ablaye Ka Mbour Ka Magay ñoo binda lettre jox ko président de ñu ne ko ñun Yaya lañ def candidature de département maa ngi leen di félicité maa ngi leen di kër si déedéet ci grec ma xamal leen ni mosuma xàccoo collectif bii dem nañ ba ci président ñu ne ko yaayaa defa dem di nasakaay di nake pour folu loolu ñeneen ñoo koy def parce que nag loolu du ma weddi ku koy def parce que nit li mu def boppam loolu lay natta ci keneen waaye man du ma ñii nga xam ne ay mag lañ ñoo ma tànn def ma doom ñu ne ma force yaa ñu jiitu pour intérêt réseau bi buñ la buggee yónni yónni la yaa nekkal suñ ndaw loolu moo tax ma nangu ko waaye jëleewuma ko pour poste bi jëleewuma ko pour tur bi waaye dama ko jëlee pour intérêt réseau de Kaffrine dama ko jële pour sauver président de la ko liggéey bi parce que président de la République na ne tey le maire réseau de Kaffrine jox nañ ma modèle boo xam ne war nañ ci copier pour Sénégal ma jàll premier tour bon loolu bu demee ba président toog reconnaître ko ku fa ñëw ñun ñu ngi la tàllal loxo ku fa ñëwul du la bàyyi duñ la boddi waaye danañ la seet si duñ noppi di daja di dajale pour gagner président de la République buñ jekkee nag fan faloon na ko 2019 ñu nekkoon maire 2014 ñooy présenté ñu leen contrôle contrôle rek waaye électeurs yi yi nañ fii ñu teeyi duñ wote nit ñi fa nekk rek ñooy wote de te ñu foloon maire yi ñooy folewaat bon coow bi ci teen bi ku amul baax a waral nañ dem wuti baax ak goj dem wuti ci fii fekk taxawu fii Macky Sall moo taxaw ñun ñoo taxaw pour for Macky Sall ka Ibou Cissé nee na benn centre moo am fii mooy Macky Sall bu daggee benn centre du fi des gis nga Pandiol wax nga ne Macky bi mu dindee conseil économique social dafa la woo kese yaa nekkoon conseil économique social Mbirkilaan bokki woon nag ci li ñu métti Mbirkilaan Malem Hodar kaas nañ ko si devant président ci nomination yu gën a néew. waaye bi ngeen demee am ngeen ñaar Macky dafa yore président bi rek waaye bu yortoon président duñ ko am de bon ñun li ñu wax mooy dog pour Macky am 85 pour cent réseau bu Kaffrine te li ñu koy amee mooy ñaari mbir. mooy ñu ànda bokka ndey bokka bay yéenay suñu mat ngeen dajale ñu sur dimmale ñu buñ juumee ngeen wax ñu ko waaye suñu àndul di feewale kii di kàcca kii di kàcca fale kii di defar kii di yàkka duñ fii génn te bu boobaa duñ am nomination ku fi yaakaar ne Macky bu jógee fii da nga am yaa ngi nag sa boppa ku weddi na seet Ablaye Wade 2012 ku weddi na seet mu seet ab bu ñëw 2000 ku weddi na seet loolu yooyu rek war nañ ko def copier bu ñu def élection koo bokkal ngeen bàyyi fanaan bi benn nekk buum la nag ba jël sa carte jox ko ko parce que bu ngeen gañee guddi gi dangal dana la wekk kat parce que kon mooy sot nit day am soit dañoo soit Macky Sall Macky mooy suñ mbir bon nañ def fekke moom ala awa cinq ñu jox victoire bu gën a rafet ci de Kaffrine ñun loolu moo ñu war loolu nag danaa féliciter le maire ñi nga xam ne dañoo taxaw jël seen alal cotiser ko pour bu problème am ñu dem faji mu ngi liggéey mu ngi def waaye nit ñi nag nañ góorgóorlu dem ci nit ñi wax ak nit ñi li ñu am ñu bokk ko ak nit ñi parce que nag makki jom na ma teraanga rek nga toog foofu di ko yàqal mais bokkul ci ngor nan di liggéeyal Macky Sall li ñuy def nii war na ñëpp parrainage bi kun jël fii kartam d'identité jox ko keneen ñaari mbir mu ngi ci benn risque boo jëlee sa carte d'identité pare ne ko nit nga jëlaat joxaat ko keneen dañ lay àtte te dañ lay tëj pour mu leer fii nit ñëw mu ne la procès laa lay monter nga jox ko carte d'identité kii fàllu faa ñëw nga ne ko am carte d'identité pare naa la ko Macky Sall ñu dem ñu nekk ñaari tur ñaari benn nit ci ñaari parti tribunal moo lay woo te lu ne dana la ci fekk parce que ñun ay député lañ ñoo ko wote danañ la te ñaari at kaso ba fukki junni ak juróom-ñett ba ñaari million pour mu fii bu nit di parrainé na seet ku mu wóolu doy mu parrainé ko ko président de la République bu gënal région Kaffrine sett yi mu tànn région bi bokk na ci bon ñun ñoo war a sacrifier suñu boppa seen nit ñu leer ñu dam waxtaan ak ñoom ba ñu parrainé Macky Sall région bi liñ ci bëgg ñu am ko ci ñu am 85 pour cent au premier tour loolu moo mooy suñu jaar jaar suñu jaar wàcca ñu laajaan mag yi suñu warugal waaye su fekkee nag bàyyi nañ ba ñeneen ñi jiituñu région de Kaffrine Malem Odor Koungheul Kaffrine ay 60 nangam pour cent lañ amoon Birkelane 53 pour cent lañ amoon na ngeen fekke ngeen am 70 pour cent ñu nit ñu góorgóorlu am 80 pour cent ñu boolante ko ñu am 85 pour cent def ko président de la République au premier ñu laaj ko nag suñu warugal am nañ ay ndaw am nañ ay kaadaar am nañ ay lépp ñu laaj ko liñ moom. ñu yi li ñuy jokkee ñu bokkati waaye man de su fekkee am na luñ feebale duma ko laaj dara te képp ku koy laaj danaa ko président bañal na leer parce que aussi il faut ñu xam ne mag li muy liggéey ci bourse familiale universitaire maladie ak li nga xam ne mooy PIDC ak li nga xam ne mooy piment ak li nga xam ne mooy ni muy defaree néew doole ci réew mi boo amee 65 ans boo demee faju doo fay loolu war na tax ñu wote Macky ñu woteel Macky pour premier deuxième deuxième mandat premier tour ñu jox ko quatre-vingt-cinq pour cent parce que nag bañu Saalum bugg na Saalum waaye nañ bugg a su boppa ba jóge ci situation bi nekk monsieur le maire yi nekk ci département Birkelane góor góorlu leen ngeen bokka dee bokka bay yàlla moo leen boole fii kenn ci yéen bi nekkul maire ñeneen ñi nekkul maire yàlla indi na yéen ñëpp ngeen daje fii ngeen doon mer am na seen morom seen nawle yi ngeen jàkkaar lool ñu doonuñu mer yàlla moo leen tànn na pour bokkaleen dee bokkaleen bay bu leen nangu kenn feewale leen waaye na aussi na ngeen xam ne politique bi fi mu toll mobilisation la ak sensibilisation mooy génn électeurs yi waaye du ay pratique waaye wala ay organisation loolu du fi génn électeur mobilisation mooy génn électeurs yi ci mobilisation toll nañ gën moom nit ñi ñu mobilisé wu pour gagner le président de la République au ma nuyu aussi collectif des maires APR de la région de Kaffrine te Yaya Sow jiite ko ma nuyu itam su ma nuyu Yaya Sow ci collectif des maires nuyu naa ñi wax. ci turu département de Koungheul muy le maire Makhari Mbaye département de Malem sama papa Ibou Cissé Louka département de Mbirkilane muy le maire Abdou Aziz Diagne di sama xarit itam mais terminé aussi par le maire par le maire de Diokoul moo nga xam ni mooy suma responsable ci département de Kaffrine parce que nag ku ci nekk am nga département boo dëkk ma dëkk ci département de Kaffrine Seth Diop au conseil de la République wax ci turu département de Kaffrine ma baral ko nuyoo ma nuyu itam sama papa Alhaji Ndiolloum conseil spécial du président de la République non seulement mag la ci parti bi mais suñu kilifa la ñun ñëpp képp ku tey ku nekk ci parti bi à part si Cissé mën na wax ni sa kilifa laa ci at au moins mën nuyu sama xarit Ndari Loum muy Haut Conseiller de la République moom sama rakk la sama goro la te ñu bokk lu bari ci li ci li jëm ci dox man nuyu sama xarit bu yàgg docteur Oumar Sarr maa ngi ko xamee ci USB Union Sportive de Berkelane mu jiite woon ko ma ko ci nuyu te li ma wax dëgg la xamante ne bu yàgg ci mouvement associatif muy aussi directeur de la santé bi nga xam ne ministre Abdoulaye Diouf saar ñëpp xam nañ sama diggante ak moom mën nuyu aussi sama xarit yu yàgg yu ma fi fekk muy ku mel ni Oumar Ndaw ñu nga xam ne ñoo bokk ci liggéey bi su ma mag maxtar Mbeng xam ne ñun bu ñu nekkee xale bokkoon nañ ci ñu dàqoon football ci mbir ki laal man nuyu aussi Baye Cheikh c'est vrai que moom du suma xarit waaye soo mag la mag moom mag rek la mag buur la man nuyu ñoom Makhtar Ndaw ñoom Sangare nga xam ne bokkoon nañ ci mouvement associatif fii ci départ boobu département de Kaffrine benn la li ma indi yaaya wax na ko maire yi fi jiitu yëpp ku ci nekk wax na ko ñoom dañoo def collectif des maire APR de la région ñu invité ma ci te may liggéey ay maire dans le département de Kaffrine ay maire yu ma jàppale lool su ma leen gisee ñu soobu ci dara man dama ciy sóobu loolu moo tax ma soobu ci parce que ku mel ni Seet Diop ku mel ni Cheikh Gueye ku mel ni Alaaji Mbay ku mel ni Moussa Alima Cissé taxaw ñu taxaw taxaw nañ ma taxaw bu leer ci li may liggéey ñu bokk ci association ala kulli alin man bokk naa ci mais au de delà de ça président Ndiol lu wax na ko dañoo am ñun ñëpp devoiru booloo nekk benn gis nga Abdou Diouf da doon wax ni on peut marcher séparément mais quand il s'agit de frapper frappons ensemble dëkk bi région bi bokk na ci région yu gën a ndóol ci Sénégal région de Kaffrine bokk na région yu gën a néewle ci lii budget Sénégal di joxe loolu bu amee buñ ko teg ci benn président ce ne sera pas Macky Sall ñi war a d'abord futteeku pour liggéey suñu région ce n'est aucun président c'est d'abord les fils de la région ñoo war a daje nekk benn liggéey seen région président bu ñëw fekk ñu ci liggéey bi mais mënuñu dund ci région tàllal suñu loxo rek ne ndakaaru defal ñu dans l'identité nationale damay wax ne damay j'assume totalement mes responsabilité dans l'identité nationale boo waxee ndakaaru boo wax Saint-Louis boo nga wax Ziguinchor nga wax Thiès nga xool ñun Kaffrine ban wàll lañ ci am loolu lañ war a seetlu bu ñuy wax gerte gi fii lañ koy béyee usine yu koy transformé mu créer emploi mu créer économie locale benn usine ba baa ngi Diourbel beneen baa ngi Ziguinchor lu sommes ñun rek ñooy région wu Sénégal bu nga xam ni amul industrie benn ngi noonu suñu xale yi képp ku ci am BFM ba am bac quelle la source de revenu ou d'emploi amuñu ko c'est parce que depuis 40 ans depuis cinquante ans qu'on a eu les indépendances, Kaffrine n'a jamais été une option industrielle du Sénégal. Or, nous sommes le, la capitale du bassin arachidier, grenier de l'agriculture sénégalaise. Mais ça, c'est des rectifications à apporter. rectification yooyu mënuñ koo def kii demee na la kii demee na la kële demee na la nañu booloo ñu nekk benn nguur yi respecté ñu jox ñu suñu wàll suñu wàll nag du nommé Ablaye Sow poste nommé Kële post post deful dara ci ab réew lu muy def mooy ko un développement structurel boo xam ñoo ko réfléchir ndoor suñu bopp teg ko ci ay yoon président bi ñëw jàppale ñu la politique c'est un rapport de force man li tax ma jóg di xeex pour que Macky ay ait une écrasante majorité ci Kaffrine ci département bi ak ci région bi su ñu ko amee ñu am 80 pour cent ñu ne président su ñu wàll ci réew mi ñu exiger et en ce la là Macky Sall devient un allié dans le développement dans la construction du développement de la région de Kaffrine ci ñi taxaw ne bëgg nañu réew mi Macky ci gën il y a même pas photo ku ci nekk xam nañ sa démb xam sa profil xam fi nga jaar Macky Sall bu demee bëggaat naa réew mi du ut dara pour boppam c'est pour consolider les acquis et pérenniser l'émergence qu'il est en de construire parce que wax naa ko dem ba ci Kaffrine Macky Sall nekk na directeur général Macky Sall nekk na ministre de l'intérieur ministre de l'énergie Macky Sall nekk na premier ministre Macky Sall nekk na président de l'Assemblée nationale Macky Sall nekk na président de la République lu ko dese ci lan la ko nit mën a ëllëg nit ne Macky Sall amul li non ñun ñoo dese dans la construction de nos régions yaayaa wax na ko sànq nous sommes la seule région ñun rek ñooy région boo nga xam ni tali bu ñuul Kaffrine Tamba mooy Dakar Tamba Kaffrine Touba naka la ñuy mën a développer ab dëkk te même circulation bi jafe même boo jógee Kaffrine di dem Maabo tu as des difficultés naka la ñuy defee mais ça il faut du travail nañu bàyyi xuloo bi ak añaanante bi ak xasanante bi jëm ci liggéey booloo nekk benn dañoo tardé bu ñu waxante dëgg dañoo tardé retard boobu dañ ko war a rattraper e Macky Sall nous donne une occasion de rattraper le retard de la région de Kaffrine barke démb bi ma liree conseil économique et social man dëkkuma Birkelane njoolum sama papa la mais ndëri laa gën a miin ci politique jege woon du loolu du ko gis du gis bu ñu ko wàccee ci conseil économique social téléphone wu ma joytuwu ma ndëri oowu ma joytuwu ma man maa ko gis rek ma gis Birkelane zéro ma ne Birkelane zéro c'est pas normal on doit pas être dans un département ñu ne Birkelane c'est zéro kenn oo ñi ma oo jëlu ma leen ma oote président rappelé ma ne ma waxoo dëgg njool lu mu ci liste bi parce que man maa bind list bi njollum benn la ci Sénégal Ablaye Sow mën naa leen jaawale xam naa fukki Ablaye Sow mais njollum benn la ci Sénégal bind naa ko ma ne ko président décret bi mu ne ma bind naa ko ma ne ko bindoo ko mu ne ma kon ñaa kaay ñu génne décret bi mu xool ko mu ne nekku ci mu am mbetteel lool au gendarme au kayit yëpp bi njollum ñëwee au tawaat na gendarme au kayit yëpp wan ko ni gisee kayit yëpp yi ma signé sa tur ngi ci woon waaye lii béy woy na mbuus mais naa la defal lu ëpp au euh, conseil économique et social naa la defal conseil spécial chargé de l' si sama wet boobu su ma doon xool politique politicienne am naa ay responsable Kaffrine am naa ay responsable Kaffrine mënoon naa leen ñaanal am na ay ñu ñu ñu sonn ci man lool te amaguñ dara mais damay xool l' équilibre régional et pour développer un pays il faut que chaque département et des appuis président wax na leen ko bi ñu ñëwee njoolu mii maa ngi koy gërëm parce que ku gëm yàlla la gëm yàlla loolu te loolu si lii laa ko gisee bi ma ko téléphoné man ne ko président dafa la bëgg a gis mu ne Ablaye yàlla moo may conseil économique social yàlla dindi na ko waaye sama ngëm boobu ak Macky Sall kenn mënu koo dindi c'est ça un militant c'est ça un responsable su ma newoon naa sàmmi béy sama topp ko parce que xam naa ne Macky Sall dugal ci erreur

il faut que ñu booloo nekk benn ñu xeexandoo ñu construire suñu développement pour ëllëg suñuy doom ñu bàyyi leen fii une région bien bâtie man si politique ci commune Kaffrine Thierno Birame Ndaw laa mas a naw su bokk dara nag mais Thierno Birame Ndaw dama jàpp ni am na ay axe de développement yu mu tegoon Kaffrine bu ko nit ñi continuer woon tey ñu ngi ci leneen ces axes de développement là il faut que ñu reconstruire ko mais dans l'unité amul kii tey la ñëw démb la ñëw kuy ñëw ëllëg sax nañ ko jëli man affaire kan laa ci ñëw 2016 2016 ma am ci li ma ci am kon mën naa siis keneen nañu bàyyi siisante bi ñu ubbi parti bi ñu ànd nekk benn dans la commune de Birkelane man koo taxaw moo fi gañoon mais mille trois cent et vois la am Benno topp ci am mille cent et quelques voix on peut aller plus loin parce que ci inscrits yëpp ci Mbirkilaan on a quarante mille inscrits quarante trois mille inscrits quarante trois mille inscrits yi vingt sept mille ñoo voté on peut aller jusqu'à trente cinq mille votants ñu changer d'autant plus que rapport de force yi amoon ci Mbirkilaan ci élection législative yi changé na man koo taxawu Sénégal daanaka tas na fi Fada mu ñuy jàppale Diop si ñu lay jàppale te Diop si aussi am na mille et quelques voix donc les rapports de force doivent fondamentalement changer à Birkila mais lu koy changer nag dëgg mooy ñun responsable yi ñun ñu rassurer ñu rassurer population yi ñun responsable yi ñu dànk nekk benn tey bu ngeen gisee yaay ndaw Diop mu bàyyi lu muy def yëpp ànd ak man ñu ànd ak ñu fi ànd ak ñu ñëw fii mooy que ni Kaffrine mu ngi joxe ay signal bu leen gisee Leyti Ndiaye bàyyi li muy def yëpp ñëw fii ñoo ma jiitu ci APR ñoo ma ëpp responsabilité ci APR mais ma nangu nekk yaay ndaw Diop sama yaay la Leyti Ndiaye sama jabar la waaye sama mag la itam ma nangu loolu il faut aussi ñu nangu les responsabilités de ceux qui sont là mais boo xeebee responsable doo nekk responsable parce que man nekkuma responsable APR à Kaffrine Abdou Aziz Ndiaye mooy responsable ma nangul ko loolu nañu nangu responsabilité yi ñu fi fekk ci parti bi. ñu ànd nag liggéey kenn mënu maa tere liggéey man est-ce que Aziz mën na maa tere liggéey Kaffrine ou Yaay Ndaw Diop mënuñu ko mais nag dama leen di jox seen cër ak seen responsabilité de légitimité bi nga xam ne yàlla moo leen ko def et comme ça ñu joxante loxo ñu bàyyi jëwante yi ñu bàyyi ku nekk boo waxee nekkee ci ginnaaw keneen ki nga wax leneen lu nga xam ne deful deful dara bu ñu ñëwee nañ toog waxante dëgg on construit notre développement moi j'ai juste man dama damay am gàcce. su ma xoolee ci suñu développement région fu mu toll